ملاذ الناس ah, bi ci des mooy xew-xew yi nga xam ne ñoo ko yéen koy dundandoo mooy li ñuy gis fan yi ca Palestine nga xam ne juróom ñaar fukki at juróom nii lañ ne yàlla def nag weekend bi weesu Hamas def opération boo xam ne Israël musul gént ne Hamas mën na ko musu ko gént di opération bu nga xam ne euh, yëngal na l'occupation qui s'appelle wala qui prétend s'appeler nañ koy waxee te Israël te jotewu ñoog yonentu yàlla Yaquba dara xam naa Israël lañ leen war a yónnee lañ leen war a tuddee ay bandi yoo xam ne ñi Amérique lañ dëkk ñi dëkk Russie ñi dëkk yeneen ñi dëkk ca Europe ñëw jël suuf si jàmbur rey ay téeméeri téeméeri junne ci ñoom te bés bu ne ñuy jël ca suuf sa lu ëpp lañu jëloon te seeni pexe bu sottee mooy jël suuf si yëpp te tegewul fenn ndax gannaaw guerre ba amoon ci Europe te ampiro ottoman àndoon ak Allemagne ci première guerre mondiale bi ñu perta guerre bi ci la Europe tàmbali séddoo Middle East ñu jël Palestine nag jox ko Bretagne Grande-Bretagne mu yilif ko te booba dikk nañu ñu ñoo tuddee yahut te duñu sax yahut ci diine waaye dañ ko mbubawoo rekk ngir Occident dafa bëgg benn badi ci biir dëkku jullit yi ci fi ñuy tuddee Moyen-Orient Moyen-Orient jaziratul arab moo am charqul awsat amut jaziratul arab moo am waaye ci seeni pexe ñu fexe ba li xew ak Hitler te la Hitler def yahudi ñu bari ca ñoom kat ci ñu ko fexe lañ bokk ñu ñu tuddee tey de zioniste ndax boobu bëgg nañu état biñ bëgg a taxawal ñu bundu xatal ña ñu bëgg a ba taxawal ko ba ñooñu nangoo génn te booy xool Hitler kat liñ koy bona la bona la yëpp bokk na ci ñaar yi taxoon mu doon xeex ñoo tuddee yahud ci Allemagne ak ñi mel ni ñoom muy li ñoo tuddee riba ak prostitution ñaar yooyu ndax Hitler nitu valeur la woon nag parce que buñ lay tuddal Hitler ak yu bon yiñ koy askane yëpp terewut gëmoon na ne yu bon yii di riba ak prostitution dëkk bu mu nekk du baax moo ne la Hitler def bu yeggul ci dixième mu la buuru Belgique def ci Congo lam faray ci million yi nit kenn xamul na mu toll waaye bu Hitler bi la tudd bale kenn du ko tudd kenn du tudd Faidherbe ñun dañ koy tuddee sax ay point ki rii te suñu maam yëpp moo leen rey moo leen rey yooyu nag ba mu amee ba ñuy tàmbalee ñëw Palestine ñoom dañu wax wax waa Palestine ñii amuñu fu ñu dëkk ndax mën ngeen leen may ñu réfugié wu ci yéen Palestine nit baax rek comme ni jullit yëpp war a baaxee leen mën nañ ñëw ñuy ñëw benn par benn ndekete liñ bëgg mooy nangu réew ma ki nga xam ne moo njëkk a taxawal résistance bu ñu ne résistance na mooy Izzuddin Qassam di taalibe Cheikh Sidi Ahmed Tidiane di xalifaam ca Palestine moo tax nga jis tey Hamas seen armement yi ñu leen di ñu koy tuddee Kataibul Qassam seen armée bi même missile yu bari xasaam un la ñuy tuddee xasaam deux ñu ngi koy tuddee Izzuddin xasaam mi nga xam ne Grande-Bretagne ñoo ko rey ndax résistance am booba is li ñuy tuddee tey Israël taxawut ñu ne ci seen caaxaan yooyu ba 1947 jàpp 48 ci complicité wu li ñuy tuddee tey ONU ak dëkk ya ko composé ñu force leen ne dañoo defar ñaari dëkk bi tudd Israël bi tudd Palestine waaye Palestine rek am Israël amut ñële di résister di résister waaye bës bu set ñii ñu ngi gën a yokk demoon nag ba nit ñi naagu ndax doole Israël giñ koy tuddal waaye Hamas jàmbaar yooyu le daal di leen bettee li ñoo tuddee tuufaanul aqsa muy mbëndum yonentu yàlla noox ma yàlla di tudd ci alxuraan ñu ne mbënd mi jógee aksa di masjidul aqsa wala dal ci nooni diine ak nooni nite muy ñu bon ñooñu tuddee seen bopp Israël te ka ca gën a bon di Benyamin Netanyahu ak ña koy jàppale koy jàppale moo xam waa fii léeg-léeg ngay tagg républicain yi wala démocrate yi Amérique waaye ñoom ñëpp ay am ñëpp ñoom ñëpp ay am waaw ku ci gën a bon nga ne kii la ndax ñoom ñëpp ay jàppale tooñkat yooyu ci seeni tooñ di leen jox arme di leen jox xaalis di leen propagandal booy seetaan média occident yi da ngay foog ne eh, Palestine nit newu fa ndax li fa Israël di def te kenn du ko wax attaque da Hamas rek la ñuy wax te duñu wax tey junney bakkan ak ñeenti téeméer yi ñu faray te genn wàll gi yëpp di ay xaleel ñëpp di ay civil ñëpp di loolu nag eh, jar na naqarlu waaye lii tax mi lay gën a naqari mooy seetal dëkki arab yi dëkki yaram yi mat na ñaar fukki réew ak juróom ci dëkki arab booy seet la dëkk ci dëkk arab yooyu ci mbindeef mat nañu quatre cent trente millions de personnes tey àdduna bi lu mat juróom fukk ak juróom ñaari réewu jullit a ngi jullit yi ëpp na ñaari milliards ñu ñuy rey comme ay picc mu mel ni dara xewut loolu mooy li metti ci mbir mi muy jullit yi di ay citoyen lambda jullit yi di ay euh, politik wala nit yu am pouvoir chef d'état wala ay buur jullit yi di ay boroomi xam-xam ñëpp ñoo échoué ñëpp waaye yonentu nag waxoon na ne lu jamono métti métti dana am ñoo xam ne duñu duñu bàyyi te am na ci benn xadis mu ne ña nga ca wàllu laqsa kon tey ña nga xam ne ña ngay taxawal la Falastin di xibla ji njëkk ci xibla yi ndax yonentu lim nekk màkk yëpp daf daan jullu ci kaaba gi ak baytul maqdis bi muñ demee Madina jublu na baytul maqdis fukki weer ak juróom benn jàpp fukki weer ak juróom ñaar yàlla soog ko mu jublu kaaba gi bi ko yàlla rañaanee jaarale ko baytul maqdis mu jiite fa yonent yëpp ba mu koy yóbbu ci kaw it foofu la ko jële bu dee ci wàllu ku fa gën a yàgg kanaani yoon yi muy arab yi ñoo ko ñoo fa nekkoon xataa Seydina Ibrahima ba mu fay dem kon ni ñuy tuddee tey yahud amuñu fa benn xaq bu dee ci wàllu diine tey lislaam mooy diine yàlla ci kaw suuf ñoo ca yey rawatina ñii na nga xam ne dañuy mbubboo diine waaye ñoom benn góor yoon ak ñoom ñëpp ba ci nette ñaawam yàlla mi leen bind sax gamuñu ko wax ma laa di gëm diine tey jii booy xool ci seen tawraat bi ñu yore dafa contourner yahood yi war nañoo tabax taxawal réew te ki ñuy tuddee seen messi ñoom yegg kon ñoom li ñuy wax li ñuy wax sax li ñuy def sax dafa violer seen propre téere bu fekkoon ne moom lañ gëm waaye lompañu jullit yi nag dëgg-dëgg xadis ji yonentu sallallahu alayhi wasallam waxoon rek ngay jàng nga gën a mën a dégg situation jullit yi ren wala léegi yonentu sallallahu alayhi wasallam daf ne yushikul umamu an tatadaa alaykum kama tatadaaca al akalatu ila qosaatiha nee na jamono ngi ñëw ni ay lekkkat piir di xëccoo booli bu fees ak yàpp mbaa jën la leen yeneen xeet yi di xëccoo wee yeen jullit seetal Libye fii seetal Égypte fii seetal Yémen fii seetal senegalak ak Afrique fi ñu ñun seetal seetal li xew Palestine seetal li xew Syrie seetlu ko saxaaba yi ne ko ndax bu keroogee dañuy tuuti wa min qillatin nahnu yawma idin ya rasulallah xanaa tuutey tax ñu mënal ñu loolu yonentu ne ah, déedéet bal antum yawma idin kathir su boobaa da ñaari milliard su boobaa dana fekk ngeen mat ñaari milliard da di bëri waaw wante gis nga bu yàlla ji tawee ba ndox mi di yol waxuma la ndox mu tilim moomu na mu mel ngeen ni mel waaye mbalit ma muy yóbbaale ne mbalit moomu ngeen moomu ngeen di mel looloy tax yàlla dana rocc wegeel ci dënnu noon yi benn noon dootu leen wekk ndax li nga war a seexlu doo ko wekk ba noppi sotti sànni ci seen xol yi yéen alwahan alwahan ne keroog alwahan la yàlla di sànni ci seen xol yi yéen julliti ñu ne ko moo luy wahan yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne xubbu dunya wa karahiyatul mawt bëgg àdduna ak sib dee koo gis rek ma tabax koo jis ma ngaa daw waaw koo gis la waxee plan dangay foog ne kii du fi jógati mukk waaw mukk waaw ba pare ñëpp ragal dee nag ba pare ñëpp ragal dee nag ba tax ñu ñeme leen nee na tax ñu ñeme leen waaw defe lii bu ñu dalul woon li ñu dal tey dinañu dal donc duñu dal duñu dal waaye nag du tere yàlla tàggat na ñoo xam ne ñoom e, li yaaram di wax ne rubb e, alfin ka uuf wa rubb fardin ka alf waaw bëri junne yooyu gis ci nombre fekk tusalentere tus tusalentene tus tusalentane tus waaye danga gis kenn ku wecce junne da nga gis kenn ku wecce junne waaw ñooñu nag tey ñi ñu ko fegal mooy ña ca Gaza ak ñu mel ni ñoom ci Palestine waaw nga xam ne dañu jël dee ne kay dëkk ak ñun kay dëkk ñun waaw kay dëkk ñun su fekkee ne am na ñu ñu ganu buur mbaa ganu sëriñ ñun gan gi gën a rëy pour ñun mooy dee ndax bu ñu dajeek yàlla rek lépp tet bu ñu dajeek yàlla lépp ndoxtu tax parce que dund gu àndul ak karaama mais du dund ah, dund dafa ànd ak waa dund dafa ànd ak dignité te dund dignité mooy sa fi la yàlla jox kenn du ko jël nga di ko seetaan sa diine kenn du la ko tere nga di ko seetaan dañuy moo tax ñuy wax eh, benn yàlla may ñu ndam ñu not noon bi wala may ñu ndam ñu taseeg moom nasrun aw aw aw shahada waaw nasrun aw shahada waaw loolu de moo xew ñuy ñaan nag sama boroom mu dimbale leen ba may leen ndam ci kaw noon yi ndax noon yi tey rende eh, wala jamono yi ñu toll kenn nelawul Israël parce que parce que lii mosuñu ko foog waaw kenn nelawul waaw ñi nga xam ne nii wax lañu mën muy borom xam-xam yi nañu wax ndax ñëpp xam li xew ñépp xam li xew ñi am lu ñu dimbale nañu dimbale dañu dimbale waaw ah, ñaan tamit fu ñu toll di ko def ndax ñaan mën na lu ne ñaan mën na lu ne rawatina di baril di baril surtout di baril xasbuna allah wa niamal wakil waaw di baril xasbuna allah wa niamal ndax kat loolu la yàlla joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw alladina qaala lahum nnaas inna nnaasa qad jamacuu lakum fa zaadahum imaanan wa qaalu xasbuna allah wa ni'mal wakiil moo tax ku nekk na ñoo xam ne dañu ñëw di ragalloo yonant bi ak ñamu na leen yii yéeféer yi ni ñu toll yonantu ne ah ñun de yàlla lañu ñu doyloo la góor waxoon man yàlla doy na ma doyloo naa ko ma indakum yanfadu jàng naa ko waaw waaw wax na ne sallallahu alayhi wa li gën a dëggu ci lu waykat mos a wax mooy la Labiid wax Labiid dafa wax ne ala kullu shay'in ma xala allaha baatilu wala firi ko ne ludul yàlla neen la lu dul yàlla neen la moo tax xasbunallahu wa ni'mal wakilu jar di baril waaw ndax yàlla nee na ña ko wax bañ ko waxee rek ngëm laa leen yokk waaw maanaam bañu amee ngëm ba ne xasbunallahu wa ni'mal wakil bañ ko waxee rek eh, nee na fanqalabu bi ni'matin min allah waaw yàlla ñëwee leen yàlla bettee leen xewal waaw leen xewal wa fadlin ak ngëne leen lam yem sasum suu dara lu métti mbaa lu ñaaw dalu leen wattabau ridwan allah wallahu du fadlin alim moo tax di wax xasbunallah wa nimal wakil yéene ko jullit yëpp rawatina waa Gaza ak waa Palestine yëpp farata la ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع